juddu judd ci mouvement navétane ndax bu may am 13 ans 14 ans dèjà maa ngi ciy milité ci mouvement navétane ci parti bi am doole bi ñuy naan entente entente man daanaka sama carrière yëpp football laa ko def nag néew na âge boobu nit am ko di nekk respons di nekk militant wala nekk responsable kon man lii laa xam lii laa juddoo lii laa yoro lii laa màggee kon bu ñaari jon amee yéene pare na ma mun ma def lu dut xar sama tànk tibéy pour réaliser loolu moo tax bu ñu ma wooyee ma ne dama koy def ndax lii laa xam ci lii laa juddoo ci lii laa yoroo ku ma xam tamit ci lii nga ma xam. daal yàgg na politique ndax man depuis parti socialiste maa ngi euh, na li may defee politique dafa ñeneen ñi di defee politique ndax man politique dama yaakaar ne du chaque jour man loolu laa jàpp politique du chaque jour dafa am moment yoo xam ne pour politique la moment yoo xam ne pour faire autre chose ba moment politique jotee dinaa politique ba ñi nga xam ne xam nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi dañ ma xam ci politique ci. bu jotul nag bu dee politique amut ma la ma am jotul pour man damay toog nekk ci yeneen moo tax ma xaw a am peut différence ak ñeneen ñi ndax defu ma ko tamit métier def ma ko loo xam ne tamit suba ngoon guddee bëccëg euh, douze mois sur douze mois dama koy def loolu moo tax peut-être suma particularité ak ñeneen ñi loolu la. président Baldé xam na ma parce que a chaque fois bu occasion présenté woo dinaa ko woon dama toll à chaque fois bu liggéey jotee dinaa ko woon dama toll te ñi nga xam ne tamit bon li tax sentir ma peut may ute nag ñeneen ñi ñuy defee politique mais ñi nga xam ne ñi responsable yi nekk fii Kaolack xam nañ bu baax li taal la posé xam na ni may def xam nañ ma doole ak nga xam ne mel naa ko ci Kaolack ndax saa yu occasion pour ma war a wan a wan sama bopp dinaa ko def te dinaa ko def defin boo xam ne dina dina leer dina rafet ba ci élection yi mujj man oto yi ma yoroon ñuy ñuy def jëli militant yi am na ñoo xam ne seen oto teel nañu jël teel nañ ji repos ndax amuñu amatuñoo militant li ñu yóbbu man bu ñu man sama oto ba 18 heures ba bi ñu tëj bureau de vote yi maa ngi yóbbu ay militants te un peu partout dans les dans tous les quartiers de Kaolack kon yaakaar naa ne kon ku président wut mënoo loolu xëj na tamit dama wax tout à l'heure mooy ci nekk rek dama ko def métier dama ko def tous les jours dama ko def douze mois sur douze bu jotee ma def ko bu leneen jotee dama def leneen moo tax xëj na tamit ni ngeen koy déggee ak bruit yu ngeen dégg ak sooy yi ngeen dégg nekk wax gëmewu ko noonu te dama ko defee noonu troisième mandat man damay naan ku ëpp doole loo lu am lu am lépp doole askan lépp doole justice mais askan te man du dugg ci ay ay constitution du dugg si ay loi du ma dugg ci ay loi intéressé wu ma xam nga li may intéressé mais askan bi te yaakaar na askan bi am na souveraineté lii naan le peuple est souverain askan bi bu amee yéene pour war a indiwaat Macky Sall dañ koy def ndax yéen tribunal bi ñu dem tribunal sax bu ñuy layee day naan justice grande au nom du peuple kon xam nga ne peuple moo ëpp doole justice bu fekkee peuple bi bëgg nañ mu ñëwaat. kenn mënu koo ko kenn mënu ko xañ te yaakaar naa ne peuple bëgg nañ ko en tout cas ñun UCS Kaolack ñu ngi ñaan président Abdoulaye Baldé na ko ma teel a ñun jox nañ carte blanche pour nekk Macky mooy seen candidat incha allah en 2024